yépp nag yéenekaay bi xam ne ni daal Bassirou Diomaye Faye nag jiitu na leen ca kanam ñoom candidat yi nga xam ne rek ñoo doon xëccoo photo yi njiitu réew mi toftal ca candidat bu Benno Bokk Yaakaar bii di amadu baa ci biir yëglekaay bi nag waa MEDES ña ngay defal hommage kii di président Macky Sall nag di ko félicité nag ci organisation élection yi nag ba mu jaar yoon ca noonee nag lañ daal di félicité kii di Bassirou Diomaye fay nag jëm ci ndam li nga xam ne rek am na ko ci les élections ñoom nag ña ngay yeesal seenu lëkkaloo ak état bu Sénégal jëm ci daal di gën a lawal seeni jéego nag jëm ci gën a suqali nag lii di secteur

emploi yéenekaay bi ne fukk ak juróom-ñaari candidat yi ci des nag ñoom ñoo daal di séddoo li ci des nag l'info yëglekaay dellu soit ci résultat yi nga xam ne rek moom la ñu daal di fësal démb nag mu tukkee ci élection présidentielle yi nag yéenekaay bi ne jomaay moo nekk ca booba Habib Sy ak Malick Gakou daal di féete ca ndàdde ba Bassirou Diomaye Faye nag am 54 virgule 28 pour cent daal di jiitoo ca kanam candidat Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba yéenekaay bi ne Khalifa Ababacar Sall ak Idrissa Seck nag ñoo ca gën a am déception El Hadj Mamadou nag di ab jàngalekat ci wàllu science ca université Gaston Berger ne Khalifa Ababacar Sall nag moom moo gën a nekk grand perdant bi nag libération dellu lu nag ci ndam li nga xam ne rek Bassirou Diomaye Faye am na ko ci la élection nag yéenekaay bi ne nag dafa génne ci prison amal campagne nag daal di porter projet bi nga xam ne rek moom la ñu gàll ci ndoddam génnee ak cinquante quatre virgule vingt huit pour cent ci ay voix fi mu toll ni nag saa si ña ngay sàkk lu jëm ci wàllu fast track jëm ci délai bi nga ne rek moo ñeel dépôt de nga xam ne rek moom la ñuy xaar fileeg minuit enquête yëglekaay dellu soit ci leneen loo xam ne rek moom la askan wi di xaar jamono ji nag ci système bu yees bi nga xam ne rek moom la taxawal ci bopp Sénégal askan woowee nag sàkku ñu daal di saafara dund gu cher gi nag ak lu jëm ci wàllu ñàkk xëyu ndaw ñi ñi nga xam ne rek dañoo am ay victimes ci manifestation yi xewoon nag ñoom jamono ji nag la ñuy sàkku ci la république Bassirou Diomaye ne rek moo amoon ci réew Sénégal jëm ci ay manifestation ñu daal di leeral lépp ba mu leer le soleil yëglekaay dellu soit ci conseil des ministres bi ñu doon amal niki démb yéenekaay bi na njiitu réew mi jamono ji nag ma ngay dellu nag di félicité waat kii di Bassirou Diomaye Faye nag ba noppi nag di jaajëfal acteurs yi nga xam ne rek ñoom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu organisation élection yi gouvernement bi jamono ji nag ak administration bu pale nag ñu ngay jël seen ay matukaay ngir mën a nag assurer lépp lu jëm ci wàccaay passation de pouvoir Sud Quotidien na Macky Sall jamono ji kay ma ngay xaalal yoon kii di Bassirou Diomaye Faye nag joxe ay digtal ngir ñu waajal lépp lu ñeel passation de service bi nga xam ne rek war naa dox ci digganteem ak Bassirou Diomaye Faye Le Quotidien yëglekaay taxaw seetlu ci li nga Amadou Ba yéenekaay bi nag ne dafay des ci biir APR wala dafay tracé ab yoonam lu mu ci mënti doon l'observateur moom itam ma ngay teg baaraam ci ëllëgu Amadou Ba jëm nag ci li nga xam ne rek mooy desam ci ay jiixi jaaxaar yéenekaay bi di la réveil moom daal di yeewu nag di laaj ñetti million parrainage yi nga xam ne rek Amadou Ba mi nga xam ne rek moo di candidat Benno Bokk Yaakaar amoon na ginnaaw bi ñu gisee ne nag dafa mujjee ci ci élection élection présidentielle yi mel na ku koy tontu ci yëglekaay bi di la tribune nag Omar Sow mi fi nekkoon ab ministre conseiller ne président Macky Sall moo trahir waa APR daal di jàppale Ousmane Sonko ci kaw Amadou Ba moom nag dañu koo jox mu ne ay résultats yu baaxul looloo waral nag mu génnoon di xam ne ne nag faaw ñu jàll ci deuxième tour Omar Sow di xam le ci biir yëglekaay bi di la tribune ne dafa am ñoo xam ne rek ñoom ñoo doon saboté nag campagne bu candidat bu Benno Bokk Yaakaar muy xam le ne biñ ne suba la élection yi nag Ousmane Sonko ak Macky Sall gisante nañu seen biir ba ci noonee sax moom Ousmane Sonko Sonko nag ma nga doon sàkku ci Marième Faye Sall nag ngir mu ñaanal kii di Bassirou Diomaye Faye te loolee lépp nag ci kër président Macky Sall la doon xewee addu jëmale nag ci li nga xam ne rek moo xew ca Dakar Nava jëm ci marché concession bi nga xam ne rek moom lañ war a xaatim député bii di Guy Marius Sagna jamono ji nag ma ngay fëgg gémmiñam nag di solo robu avocat ñi nga xam ne rek ñoo di liggéeykat yi ñaari fan ginnaaw defet bi nga xam ne rek am nañ ko ñoom pouvoir bi nag ab lettre boo xam ne rek directeur général bi nag daal dina koy xaatim jëmale ko ci waa groupe Dakar Naval moom nag la mu xamle ci boobee lettre Ouattara bokk na ci dafay retenir nag seenub offre ngir lépp loo xam ne rek dafa jëm ci koomuk Dakarnave te lu ñu mel nag gisuñu ci benn annonce publique naka noonu benn appel d'offre bu leer waral ba yu Marius Sagna nag di ko woo moom Saliou Samb ak jëwriñ ji nga xam ne rek moom la ñu dénk wàllu napp naka noonu président Macky Sall nag ngir ñu dakkal lépp lu jëm ci processus bi nga xam ne rek moom moo soxal nag signature boobee contrat bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom nag kenn mënu koo signé ci contexte bi ñu nekk nag kilifa yi yees yi nga xam ne rek ñoo war a bokk ci gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye nag ñoom ñuy xaar ngir ñu daal di ñoo mën a lijjanti mbir yi nga xam ne rek xew na ca Dakar naaf jeexalee ak wàllu tàggat yaram ak yéenekaay bi di Rewmi Sport moom nag ma ngay àddu ci Jeux africains yi nga xam ne rek doon nañ ko ci atum 2023 bilan bi nga xam ne rek tukkee na ci compétition yi stade yëglekaay dellu siwaat ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne rek gayndoy Sénégal am nañ ko ci seen digganteeg Benin ak waa waral nag ba yéenekaay bi di samp laajte ne ban Sénégal moo fa yéene janoo ak waa RDC naka noonu ak waa Mauritanie ci weeru juin mbokk yi léegi noonu fa yëglekaay jàmm ak jàmm